alhamdulilahi rabil aalamiina wal aaqibatu lil muttaqiina wala cudwaana illaa ala zaalimiin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokki jullit yi mbokki téléspectateur des stv yi ne ci biir réew mi bitim réew fu ngeen mën a ne dend ak seen télévision la 2STV dend ak seen rajo origine FM 88 point 4 di wax nag ni fan yi ñu bari ñu ngi ma koy wax ni ma daal euh, jotuñu ko kon nii ni nañ ko wax kilifa yi macha allah rajo bi daal am na ñu am na ñu jafe-jafe pour déglu ko fii mu toll te am na ñoo xam ni si la ñuy suivre émission yi macha allah. Euh, xam leen ni kon nag seen kàddu jotal naa ko kilifa yi mu ngokk pexe mu ñu ci mën a def rek ba ngeen amaat seen 88 point 4 di ko dégloo ni ngeen ko daan dégloo incha allah loolu dina am surtout asri de lañ fas yéene jël mbokk yi ah dabba saar bu gàtt lañ dara jël tey waaye ak bari lu mu ëmb saar bi ñu jël te jii gàtt na lool waaye li mu ëmb ci ay maanaa li mu ëmb ci ay solo kenn mënu koo nattal ba xam ko ndax dama naan la ñetti aaya la saar bi ñu war a jëlte te ji trois versets la bokk ci saari màkke yi ñetti aaya la de waaye aaya bu ci nekk rek wallaay doyoon na sëkk ñu def ci tafsiru semaine bi yépp ci benn aaya bu ci nekk rek ndax li mu ëmb ci ay maana gàtt lool waaye bari solo lool la saar bii def di wal asr su ma ko doon présenté dama daan leen ci saaru makk yi la ñëw nag ci leeral xeeti leeral yoo xamante ni moom ni ngi koy dégg ci sootul asr néew na nga dégg leeral yu mel noonu ngir rek wax sabab bii tax doomu aadama di texe ak di am bonheur ak di ñàkk texe yoon wi nga xamante ni moom lay jaar pour mucc fii ci àdduna ak ñaar yoon wi nga xamante ni bu ci jaaree toskar rek la ciy jële ci àdduna yàqule lu bon di ko dal yépp dina ci ñëw te dina ko leeral bu baax a baax a baax baax mbokk yi saar bi buy door borom bi subhanahu da koy dooree waat ak sama taala bil asr yàlla day door di waat buy door saar bi loolu la koy doore al asr muy waat day waat ci temps day waat ci temps te mooy jamono bi nga xamante ni ndeysaan doomu aadama ngi jeex wala xëy na ba ngoon nga di jot temps ba mu ko neex bi jël na al asr comme ni ko ñenn ñi jàppe jël ko rek jox ko tàkku tàkkusaan ak li ci nekk ci ay kéemaan li ci nekk ci ay waaraate ay taxaw seetlu yuy tegtale ni yàlla mooy borom kàttan wala yaay waaye yàlla mooy ki xarañ muy waat ni daal doomu aadama moom la race humaine nee na ñu ngi ci perte waaye ñu ngi ci ñàkk nekkit ci wàññeeku lu dul rek am na ay melokaan yu mu ni melokaan yi daal képp koo xamante ni yor nga ko rek yëgal ni yow bokkoo ci ñi perte yàlla nag dafa ñëw dàbbatee ni di ñu wax ñen ñoo perte de ñoom ñen ñoo perte ay nit dajaloo bari lool li ngeen doon def yéen ñëpp kenn kenn réussiru ci ñëpp mu ne ah non am na sax ndax l'exception confirme la règle li confirmer nii lii am na ñi perte ñoo ëpp mooy am quelques personnes yu ñu yoo xamante ni réussir nañ yàlla nag ni ni ngeen yëg ni doomu aadama yëpp dañoo perte mu am nag ñeent ñu mu ci génn ki si njëkk ku yor ñi melokaan yi bi si njëkk mooy al imaanu gëm yàlla gëm yàlla gis nga gëm yàlla daa ba ay wax de maa gëm rek wallaay ku xar sama xol bii xam ni ku gëm yàlla laa loolu amul solo jëfal jëf rek moo wóor mooy confirmer li ngay wax ci sa làmmiñ ni gëm nga yàlla mu ne kon bis njëkk al iman ñaareel bi mu ne al amalu saalix boo bëggee bokk ci ñi pertul wax na la imaan muy gëm yàlla waaye wax na la jëf ju yiw jëf ju baax nga koy jëf ñetteel bi mooy dénkante dëgg ñeenteel bi mooy mooy ci muñ dénkante dëgg kon ndekete soo bañee bokk ci ñiy perte ñi yàlla naan innal insaana la fi xusrin boo ci bëggee mucc faw nga am ñeenti jikko yi nga yëg ni yow imaan gu wér a ngi ci yow nga yëg ni yaa ngi jëf-jëf ju baax nga yëg ni yaa ngi dénkante ci dëgg waaye nga yëg ni yaa ngi moy ci muñ waaw ñeent yi saa yoo yëgee ni daje na ci yow rek yaa ngi yëg ni yaa ngi ci li yàlla bëgg loolu moom yow pertatoo mun nag yii mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy cosaanu ngëneel bu ñuy wax ak ngëneel lii moo tax waaw lii mooy ponk ponki diine yi nag macha allah moo tax imaamu Shafii boroom ngir mu rëy moomu imaamu Shafii am laa leen doon wax ndeysaan ci mujj dundam ba dabba mu tawat tawat boo xamante ni ndeysaan wóoluwu ci yaramam daal wóoluwul yaramam ci tawat bi nekk ci moom ndeysaan kenn ci taalibeem yi rek ñëw fekk ko ndax boobu daan nañ daan doon nañ ko woowee abu abdallah bàyyu abdullahi amoon na doom ju ñuy wax abdallah loolu kinaaya la ci arab dañuy tàmm di di di woowe nit di ko tuddaaleel doomam surtout taawam yonent bi dangay ngay dégg ñoo ko abul qasim baayu qasim waaw loolu dafa yomb ci arab ñuy waxee noonu moom imaamu shafii mii ma leen tuddal bi mu yëgee loolu rek kenn ci taalibe mi njaboot gi ñëw ni ko kay fas baxte yaa ba abdullah yow bàyyi abdullahi noo xëyee ak yaram wi allahu akbar dabba benn laaj la ko laaj noo xëyee mu tontu ko juróomi mbir ndax dinaa teewloo te sax juróom yi wóoruma waaye daal xam naa ni dafa ne ko asbaxtu min addunia raxila man mii ngay laaj dey xëy naa de waaye yëg naa ci sama bis bii nii nii ma xëyee mooy maa ngi xëy pour war a waajal tàqalikook àdduna tey xëy na mooy doon sama mujjug dund ci àdduna waaye tey mooy doon sama première jour ci àllaaxira imaamu Shafii borom njiir mu mag boobu imaamu Shafii nga xam ni imaamu Malikin imaamu daaril hijra da ko respecté woon lool loolu la ko ñépp it respecté woon ci xam-xam mu ne asbaxtu min addunia roxila xëy naa daal xam ne tey jii tey maag àdduna dafa mel ni tey mu jeex de tey jii yég naa ni maag àdduna tey dootul doxati de walil ixwaani mu faariqoo maa ngi yëg man imaamu Shafii ni tey may laay tàqalikoo ak samay mbokk tey laay tàqalikoo ak samay mbokk waaw tey yëg naa ni des na tuuti day samay mbokk su leen di waxati ci man dan naan yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare ajjana man daal imaamu Shafii yëg naa loolu yëg naa ni wal ixwaani mu faariqo tey de dinaa tàqalikoo ak sama sama doom yi de dinaa tàqalikoo samay soxna dinaa tàqalikoo ak samay frères et sama taalibe yi nga xamante ni maa leen doon jàngal sama sama ñooñu ñëpp tey jii li may yëg ci sama yaram te delluwul ginnaaw mooy xëy na tey jii mooy doon dernier jour bu ñuy waxati ni suñ sëñ daara ba tey la ñuy mujj wax suñu suñu oustaz ba tey la ñuy mujj wax suñu ministre ba tey la ñuy mujj wax suñu diw suñu diw ku mu mën a doon tey la ñuy mujj wax ni tey lay mujj dund ci kaw suuf yaakaar naa ni daal man imaamu Shafii tey ma tàqali ko sama mbokk imaamu Shafii ni wali kasil mawti shaariba tey de yëg ni man imaamu Shafii dinaa naan sama kaasu dee de kaasu dee dinaa ko naan araaka nasiita almawtu walmawtu mawridun fa lil kulli min baxri almamaati nasibun gis naa la ngay fàtte fàttelu dee noonu di ko fàtte fàttelu te fàtte woo ko waaw woo ko ndax xam leen ni kenn ku ne boo ñëwee ci géeju dee sa wàll rek nga ciy naan imaamu shafii ni wali kasil mawti shariba ndeysaan oustaz Mouhamad Taha Dia suñu baay bu baax boobu yàlla na ko fi yàlla yàggal dolli ko wér dégg alquran lool waaye dégg xam-xam macha allah allahuma la adur bu lay firil wali kasil mawti shariba nee na la nee na ci arab dabba mooy verre bu am waaye nee na bu amul zujaaj lañ koy woowee mën nañ ko utal yeneeni tur su amul da bu ci dara newul bu amul ci biir kaas bi ndox meew ataaya lu mu mën a doon bu dee dara newul ca xottub kaas mën na doon zujaaj mën na tudd neneen waaye buñ ko xësee ba duy duy nag dootul doon lu dul kaas mu ni wali kaasil mawti shariba yëg naa ni sama kaasu dee duyal nañ ma ko de te faw ma naan imaamu Shafii imaamu Shafii nee na yëg na ni duyal nañ ko kaasu deewam te faaw mu naan ko ñeenteel ba mu ni wa ala llahi waarida man imaamu Shafii yëg naa ni dinaa daje jeg sama borom de tey moom faaw ju daje ca laay teere ji kon tey jii moom soo bu ñu gas ci sama bàmmeel te xam ne maa ngi waaj ñoom dañoo doon waajal seen bopp bu baax a baax baax waaw wa ala llahi waarida tey jii ci sama borom laa jëm de mu jeexale ko nii quelle modestie dabba wali suui amali mulaaqiya tey de man imaamu shafii dinaa daje ak sama jëf ju bon ju ma defoon diggal ak ni mu baaxee woon waaye du ñu naagu du ñu naagu abu ni siddiq nga xam ne moom day dund xam ne àjjana la jëm mu leer teewul daan wax naan ñàkk naa wóolu pexem sama borom ñàkk wóolu goo xam ni bu sama benn tànk nekkoon àjjana benn bi nekk ci biti duma gëm ni bi ci biti mooy fekk ci bi ci biir waaye du ma ragalit ni bii ci biir mooy fekk ci bi bisi mooy lan ana baynal fi war rajaa ni ma wóoloo yàlla ni ma amee yaakaar ci sama borom moo tax ma gëm ni comme sama benn tànk nga ca biir bi ci biti mooy fekk ba ca bi ba ca biir ma dugg waaye ni ma ragale sama boroom ak i pexe moo tax ragal naa ni bee ca biir rëccagul de waaw mën na génnaat fekkiwaat ci biti ma ne ca biti imaam Shafii ni ah, sama jëf jooju de dinaa taseeg moom de jëf ju safaan wala adri wala adri a ruuxi tasiru ila aljanna fa uhanniuha am tasiru ila annaari fa uaziha xamuma nag xamuma xamuma man imaamu Shafii ndax sama ruu day teeri ajjana ma ndokkeel ko wala day teeri safara ma jaaxle waaw ma commencé am dootul baax ku tedd kooku nag di imaamu Shafii moo daan wax naan yàlla su wàccewul woon dara ci alquran lu dul suratul asri bii rek nee na doy na ko sëkk lay ci kanamu jàmm yowmal qiyaama lu tax defu leen lii ngeen mu ne xaa jàngu leen woon suratul asri mu jeex c'est très xanaa yéen jàngu leen woon suuratul asri leen doy na ko sëkk mu lijjanti mbiru nit ñi teg ko ci indiloon naa leen suuratul asri lépp lu ma soxla woon ak lépp lu ma doon bañ mu ngi woon ci biir saar boobu su ngeen ko appliqué woon alaa la du ngeen am problème <laughs> imam Shafi dina kon lay jeex na de waxuma la alxuraan yépp waaye wal asri rek doyoon ne sëkk yàlla wàcce ko ku wàcc yoon mu duma la boo waxee mu la xanaa déggoo woon wal loolu laa lay laaj xanaa dégg woon wala asri moo tax mu ni kon doon na doy sëkk mbokk yi loolu mooy présentation saar bi ñuy war a jël di suuratul asr buñ duggee ci tafsir bi dafa ñëw ni wal asr inna al insana la fii xusr maa ngi giñ ci temps maa ngi giñ ci tàkku saan looy giñ yow borom bi moom day giñ ci lu ko neex waaw yu yu nu ko neex mu mu giñ ndax moo moom lépp waaw mu ni li may giñ daal mooy innal insaana la fi xusrin aadama mu ngi ci perte gi bu rëy mu ngi perte de perte dëgg nag ci la nekk dafa perte dëgg moom doomu aadama ndax li ko tax a perte mooy dafa fekk lu tey jii mu ko jëndee lu ëllëg te lu ëllëg moo sax lu tey jii moom day jeex moom dafay fekk liy jeex mu ni moo ko gëna la nga xamante ni day sax ba faw day sax ba faw te yàlla moom bu la nee bee mooy sax mooy gën a neex bu la nee suba moo gën a neex tey da nga war a gëm bokkul ak li ma leen doon na lëg lëg doon def bukki ba suñu rëbbee ba jàpp dara rek mun ko àndoo ah, tey de nañ benn benn kii bu la neexee ñu bokk ko tey mais bu la neexee nga bàyyi ma jël bu tey bii bu subaa bu ñu jàppee ñaar nga jël ñaari comme bukki moom yëgul la xew mun ko ah ñaar ñaari suba kay moom a gënoon benn tey mu jox ko bu ñu yàppaatee ñaar suba lëg ni ko waa ah, tey am nañ ñaar mais bu la neexee nga jël ñaar yëpp mais bu la neexee nga bàyyi ba suba nga jël bu ñu amee ñeent nga jël ñeent yëpp waaye ba mu bëggee dee xam na ni kii da koy nax mbokk yi yàlla nag deful loolu yàlla moom daf la xamal ni la wal axiratu xayrun wa abqa alaaxira man maa moom àdduna moom alaaxira xam naa bi ciy dëgg ak bi ci saxul àdduna si saxul moom day jeex léegi waaye alaaxira mooy kër gi sax ba faw nit nag yenn saa yi looloo koy topp topp bànneexam ba àdduna gënal ko àllaaxira Abdullah ibnu Abbas nee na al asr mooy temps le temps ci boppam ndax li mu ëmb ci ay kéemaan ak yu bare yu ci nekk Qataada wax ni al asr mooy ngoon gi maanaam fi bëccëg gi di jeexe ba tàkkusaan di jot nee na moom loolu mooy al asr yàlla waat ci nag comme ni mu waate ci ci yoor yoor ad duha ak li ci nekk ci ay kattan ak i mbir yuy wane màggug borom bi moom noonu la jële rek lu ko neex mu waat ci temps bu ko neexee mu waat ci li tax nag yàlla di wat lu bari ci temps ñun war nañ ko jàngat maanaam yenn saa yi mun la wadduha yenn saa yi mun la wëllëyli yenn saa yi mun la wal asri yenn saa yi mun la was subaxi yooyu yépp di ay temps yàlla di ci waat yu baree baree bari daf la bëgg a xamal ni la temps boobu doomu aadama di fooy mooy capitalam nee na sa temps mooy sa capital te képp koy jël ku ñu commerce loo nga am sa capital jël un million ñu jox la nga dem jëndi marchandise commencé di jaay commencé di noos te xamagoo fu bénéfice dem xamoo prix vérifié au prix d'achat vérifié au li ngay jaayee xooloo sa prix de revient sa yoon nekku ci bëgg commencé jël bénéfice ah du noonu de du noonu de bénéfice dafa am lu la wax ni la mooy wane mooy indi bénéfice waaw loola ngay xool mooy xam sa prix de revient xam sa prix d'achat si ngay mën a xamee lan mooy doon sa bénéfice man de jënd naa lii maa ngi ko jënde ñatt téeméer laa ko jënde waaye maa ngi koy jaayee ñetti téeméer wala ñetti téeméer ak juróom fukk comme léegi ñu fi de golof ñu mel ni man bariwuñu maa ngi ko jëndee mille francs maa ngi koy jaayee mille cinq cent wala mille sept cent cinquante bul jàpp ni ba nga nee maa ngi koy jaaye mille sept cent cinquante rek ah am naa bénéfice ba pare mën naa commencé noos déet yow jaaye goo di yow jaaye goo kon da ngay bàyyi ba jaay ba pare ba ne ah mu ngi nii de kii de ñetti téeméer laa ko jënde woon jaay naa ko am naa ci ñetti téeméer yu teg juróom fukk kon am naa ci sept cent cinquante laa ci am sept cent cinquante yi su ma neexee ma jël deux cent cinquante yi def ci samay soxla mille cinq cent yi ma jëndiwaat ma jëndiwaat leneen mu yokkaat sama bénéfice pour ëllëg mu ni kon sa temps mooy sa mooy sa capital de lu ci dem nag <clears throat> dem na ci sa dund wàññi sa àpp li nga war a dund moo tax waxkat ba naan inna la nafraxu bil ayaami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajali nee na ñu ne dañuy kontaan ci fan yi jàll ñu ñëpp dañ ciy kontaan kenn ku si dekk di bàyyi xel sa anniversaire bëgg ñu naan la anniversaire di la ko woyal di la sondeelal fii di la kii nga defee ne yaa nga ca nee na ah dem na de lu dem la de waaw nee lu jàll la waaw lu wàññeeku la ci sa dund waaw mu ne ñun nag dañuy bëgg ci bis yi niñ koy rombe rek <laughs> bis bii romb naa fis nii bis bii di wax ñi nga rombi bis yi muy dem waaye nee na na nga yëg ni loolu nga romb yépp di ko wax lu wàññeeku la nee na bis bu dem rek lu wàññeeku la ci suñu àpp di ñu gën a jegelee suñu bor xurtu bi nee na yàlla dafa war ci temps dër waaw nee na di la wan ni laa looloo fi ne de nee na mu waatit wax la ñu am na ci borom xam-xam yoo xamante ne dañ ko jàppee salaatul asr ndax li yàlla ñun xaafidu ala salawaati wa salaatul wusta ñoom ñu as salaatul wusta ñi calculer seen jàpp bopp ñu jàpp ni temps bi ci suba gi la commencé ñu ni suba tisbaar jël fee timis gee ñu ni kon as salaatul wusta julli gu diggu dóom bi mooy tàkkusaan julli gu naqari la nag bab julli ko ci heure tàkkusaan jot rek nga julli ak a jafe da lay fekk ci ay activité dab ba mën na dem ba ñëw liggéey si ñun ko am na émission boo xamante ni mu ngi commencé 16h ba war a des 17h30 mu commencé filmer nu muy def nu muy def gis nga loo am lu la indil gàllankooru mën a julli tàkkusaan ci heure dafa bari ndax dafa fekk nga dikk yenn saa yi ci diggu activité yenn saa yi jóge nga fa ngay liggéey xëy na yaa ngi wàcc ay 15 heures 15 heures 30 dugg nga ci transport yi ñu lay dang dang dang dang ba boo yegg sa kër ay 18 heures 18 heures 30 18 kon dafa jafe yàlla ni ci waat nag yàlla ba mu demee nag bay waat di waat ci temps war na ñoo xam ni loolu lu ko ñor la borom bi ni wala asri maa ngi giñ ci tàkkusaan yàlla looy giñ mu ni innal insaana naka doomu aadama la fii xusrin nee na ñoom ñëpp a perte ñëpp tiit ñëpp jaaxle ci kàddu googu ni mu réy mu ne ah dal am nay exception ñen ñooy exception yi mu ni illa alladina amanu mbokk yi xool leen sama làmmiñ illa laa wax waxuma inna am na ñoo xam ne fi mu ne boo leen tar loon wala asri inna insaan la fi xusi inna allazina amanu wa amilu déedéet du inna de illa la illa illa alladina amanu wa amilu salihaati illa alladina amanu wa amilu salihaati mu ne ba mu des gaa ñi nga xamante ni day gëm nañ yàlla nee na ba mu des gaa ñi nga xam ni gëm nañu yàlla gëm nag dafa am ñu koy màndarge gar du ay waxi kese de waaw ku defee ni gëm yàlla rek doy na jarul may julli jarul may joor jarul may def dara génn ak yooyu yëpp yooyu yàlla santaane yëpp nga di gëm nga daal jeex na yàlla nee na innam la muminuna diina ah yàlla ba muy lim gaa yi gëm yàlla dafa am yu bari lu mu yu mu leen limaaleel bokk na so dañuy julli dañuy woor dañuy génn azaka dañuy def lii dañuy def la kon dafa bari benn ensemble ngay boole soo ko am imaan mu ni kon ba mu des gaa yi ñi nga xam ne gëm nañ yàlla wa amilu saalihaati tey jëf-jëf ju baax loolu beneen mbir la di iman bi benn la jëf-jëf ju baax di beneen mbir liy tungam sa ngëm mooy jëf yu baax yi ngay jëf waaw di saraxe di dimbalee di jàppale nit ñi di soutenir nit ñi ci sutura te doo leen weer doo leen toroxal yooyu yépp di ko def muy illa alladina amanu waaye waa amilu saalihaati tey seet la gën a baax la gën a rafet la nga xamante ni boo ko defee yàlla kontaan booy julli noo seulement farata yi da nga koy matal waaye nawaafil yi sax danga koy julli saa sure yaa ngi naafila ni mu gën a bare na mu gën a sakkane na mu gën a baaxe yépp nga koy def ah, mu ni waaw loolu de mooy mbir mi gëm yàlla waaye boo gëmee ba pare lii findeel ni gëm nga mooy jëf ji ngay jëf nee naa la dañuy wax ni boo waxee ba ñëpp dégg la dàbb da jëf ba ñépp gis la waaye boo jëfee ba ñëpp gis la jaratu wax jaratu la wax mun kon illa alladina amanu ba mu des gaa ñi gëm yàlla waaye ba ñu gëmee ban wax ñëpp ba ñëpp dégg ni ñeen gëm nañu wa amilu saalihaati saa su ne rek jëfu ñi gaa yi gëm ñi ñu war a jëfe noonu rek lay jëfe kooku bu la nee gëm naa nangul ko koo xam ni saa su ne ñi gëm ni ñuy jëfe rek moom noonu lay jëfe saa su ne du ko bàyyi illa alladina amanu wa amilu saalihaati jëf ju baax rek kooku bu la gëm na gëm ko mu ne yamul ci fi loolu de waaye watawaasaw bil xaq di dénkante dëgg nit su ngeen di ànd da ngeen di waxante dëgg nit doo ko jay nit du nekk yow lu mu def nga ni ko noonu la bu defee lu dul noonu nga ni ko noonu la gars yi dañuy topp bi ñu yoru koppar yenn saa yi ñuy wàccu yoon au lieu nga dimbali leen yee leen ah non bu ma ci du ci dugg danga ko fi wax léegi mu mer lu mu ah bu moom daal lu mu wax lu dul mën nga ko de waaw doo ko wax dëgg doo ko wax dëgg ku mu tooñ sax yow boo teebee bu la laaj laajee nga xam ni xam nga lépp ba desul lu dul wax nga dégg nga naan dama ciy maandu da ba booy wër naa fiq dëgg seetal ku xam ñaari nit ñu jote mu xam ki tooñ bañ a wax ki tooñ tax mu naan dama ciy maandu maandu wu ci maanduwul seulement ki dëgg gi dal mu tudd ko moo ko arrangé wul moo tax muy wane ni da ciy maandu waaye maandu ci kon nit <clears throat> ànd bokk na ci li lay di dimbali ci seenub ànd wata waasoo bi xaqi mooy di dénkante dëgg <clears throat> mu tëje ko wata waasoo bi sobri wata waasoo bil xaq waaye wata waasoo bi sobri ñuy dénkante it muñ gis nga muñ sëriñ Hadi Touré yàgg ngeen a dégg ma koy wax nee na muñ la tax mu am solo mooy dangay muñ a muñ a muñ a muñ ba xëy gis li taxoon ngay muñ fii ci àdduna wala nga muñ a muñ a muñ muñ a ba faatu yowmal qiyaam la taxoon nga doon muñ yépp nga gis ko waaw kon watawaasaw bi sabri dénkante dëgg ni ñu war a dénkantee dëgg watawaasaw bil xaq ni ñu war a dénkantee dëgg di waxante dëgg loolu mooy yàggalub ànd waaye di di dénkante muñ nit ki boo xamee problème ne ko muñal muñal waaw muñal waaw yooyu yooyu it bul la muñ te ki lay muñ nga xam ni li mu lay wax lu mu gëm la te nga ni ab jullit nga da ngay muñ nattu yi day bari lool ci suñuy kaw ñun ñëpp waaye bundul muñ du baax waaw muñ ba ci jaamu yàlla sax ku muñul doo ko man bàyyi bàyyiloo araam ku muñul doo ko man waaw yooyu yëpp li la ciy dimbali mooy nga mën a muñ boo mënee muñ bu fajar jotee bu ne asalaatu xayru min an nawm da ngay jóg bàyyi fa mbàjj ma bàyyi fa lépp jóg waaj pour dem julli ci loolu boo muñul doo ko man te jaamu yàlla nag ndàbba dafa am yoo xam ni jaamu yàlla yu neex la mais am na jaamu yàlla yoo xam dafa metti mais yépp nag da nga am tiyaaba su ma benn mbokkum daara euh, oustaz tajir laa koy wax oustaz commerçant dam jéey daf ma ci jox bind bu dafa ne ma jël ñaari exemple jëlal tabaski ak koor bu ci nekk jaamu yàlla la bii dafa neex lu la wax rayal sam xar wàjjal defaral sa res fii defaral ci ngay lekk ñu lay bindal tiyaaba bee nag ñun la bëccëg yëpp bu lekk doo naan doo def lii doo def lii ñu lay bindal tiyaab kon bee neex na bii metti na waaye yëpp jaamu yàlla la kon yooyu yëpp ku mënte muñ du ko man wata waasoo bi sabri yàlla ñu yàlla di xiiti ñuy dénkante dëgg kon ñeent yaa goog bu ñu bañee perte daal ñu gëm yàlla di digle di jëf-jëf ju baax di dénkante dëgg waaye di dénkante muñ yàlla ñu yàlla dégg loolu saar bi may ñu it ñuy doxal doxalin boobu allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna tibaa وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب ولا تجعله ملتبسا فينا واجعلنا للمتقين إماما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته